Sénégal na ngeen abonné bitim réew na ngeen abonné KBN si kël abonné daaru maam Omar da liggéey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 ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر ربه فصلى وتؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الزوف أولى زوف إبراهيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الحمد لله دائما مبروسات وراهي مسوسات وثقرات شمس والقمر الجاني لا جيم سمن في كثبان وحادات الهلو والحسمة والكبرياء والمحامد السبات أسر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سعادة من يسوق قدر حق حق يقين بسبب اتباعها حبيب الأمين وأسأل أن سيدنا محمد عبده وحبها استورد وجود الملاك وسار ورسوله بقيام حقوق تليات الأسماء والصفات اللهم صل وسلم وبارك على سيرك الدامي دالي عليك وإجابك سمي القائم لك بين يديك اللهم صل على بصر وسير نسير الداعي إليك بإذنك وسراج منير هم الرسل والأنبياء والملائكة والأقطاب وصديقين والأولياء من أزل إلى أبد بما بمرحتك يا سمت على آله أخيار السادات وأزواجه صالحات ومحسنات وأصحابه وسود هروب كروب أداري وسوب جود خدي والغوار وبورين من بحين فان بسوبة أهل الأقوان وسبلتها وياقوتها بفضل الرحمن سبحانه وتعالى عن زيادة ونقص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 متفقة متناولة عبات الركوج صفيان من الملائكة هارين وسكان حرس وكرسي والسماوات والأرض ساترا ما بدي والرداء والقبول والإصاف وتسيم والإكرام وتوالي الألفاظ لائقة بمرتبة ألوهيته وكمال ربوبية وجلالك وعصمتك وكبريائك وتحققه ودانيتك مناسبة لمادته بوجه جسدا وروحا وقاتمة وكمال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 digal nañ ko koo xam ne kili jumaa war na la digal nañ la nga jënd ab gàtt rendi ko ci bis bi xalaati faay xalima ci dëpp ak borom xam-xam yi bu yem moom rakkaataan na ñaari rakk laay do min hili naafila ci taggan ak naafila comme nuñ ko defee nii illaa sa waali ba ca jant bi jeng sa taw danu huudu hubee moom xalimaan bisa bi takka beraatin juróom ñaari kabar bi léeraami nag fa caa konto karma xam moom daw juróom ñaar maanaam dafay def juróom mel ne def juróom-ñaar kabar a job bi ko ci niwaani muy juróom-ñaar su ma bi xam sin topp juróomi kabar ba takk bi te ila gannaaw ka bu nga taxee ci yàkkam ñaale bi da ngay def benn kabar defati juróom mu di nekk uh, juróom benn wunut ba soppeem nañ naan iawlati guddal guddim gi nekk biig ben bati ci jaamu mi na salaati julli wa sikkiri ak sii wa qiraati quran jàng alquran talaban ngir kisaaku li martaati li ngay sàkku ngërëmal yàlla li xaw li nga wax jëm sallallahu alayhi wa sallam man an yaaka dun na nan laylate di guddee yeen ni ki guddi bii gi walay tun ni si sabaan ak guddëg fukki fan ak juróom ci sabaan lam yëmu du dee xal bu xolom ba yowma yëmutu bis ba dana dee xullu ba xol ya wa xullun sopp nañ sangu ba du subi gannaaw suba comme ni ñu ko defee nii wa masi ak dox fii siyaa bi ci dem comme dikki nii nga xam ne moom ma la mataatan nañ ko dookaatunu dit boo waree dara newu ja wataya bu doo ak gat wasalaay sunu ak son bu mu rafet rafet lu bi jëmini siyaabe ci mala ci malaan yu weex ah, rafet te malaan yu ci rafet wa fi doroon nag bu di bi sa ah, dog ba sàkk nañ nga dog xab la xuroo jëkk mu génn fii fisirin ci yetu ndog te baaratan nga gaawee li imtaasa amrillah si jëlaal li ngeen digëral ah, taxawee ngi digëral yàlla moo ligëraami ak te aji tedd ji

wa takbiiru sopp nañ kabaar xamsata xasara faridatan juróom fukki farata juróom illaa la ngeen màggan wa tasima ak mbàggal li xaal lii ñeel aji ko we kabir aji màgg mi suhuri yoomi naari ci bisab tey bii maanaam li subi yoomi raabi bisab ñeenteel la boo jullee seulement rek nga ne allahu kubar min xëy taaxirin ci lu duu yéex allahu kubar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila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 bi jas ne daaninde ci foq xar bu foqee rek mën na tëbët bu seen yu ma si dee ak bu seen yoo bëy mun naa boo may boo ko fa mu am fukki weer wala mu am fukki weer ak ñaar wa baqare ak nangu ibile ak gën a sii sanatin mu dellu ca borom bëy ba wa salaasani ak ñetta mu dellu ca nag ca nag wa wa xamsani ak juróomi at mu dellu ca gëléem nga ñoom bu ñu xamul loolu du man tëbaski inda ëllëg faani ci borom xam-xam yi laakin waa dañu suuru dana seeta fii moo sin ci béy duxuloo ak tabin fii saaniyati comme nu ma ko waxee béy moom bëgg mu tabbi caatam ñaareel ma duxuloo duxuloon ak tabbi saa bayaa ni gër yaa ji bit bila seeti nag duñ ko bokkale nga koy see ñu jënd tabaski terrain di ko déedéet waaye nag ila fii la jëri man nga am tabaski nag yéene ci saa saa jege ñaale yéene ci saa jege ñaale bu nekk sa doon du ko bëri xam sabaati juróom ñaar bila si bi sarti sukk naa nag ñu ngi ca bokkal sakk na ci nga dëkk moom wa xarabatim wala nga jege moom wala faaxu wala nga yaa ko warlu dund wa jamaa nag tabaski ba donte kon dafa njukk baax na waaye ji seetum wala woo xam ne dafa lool to xam ni xiyaami man da taxaw li suum mi ba neppan ba man da xar ne ak boo xam ne ba bëjjën ba fa dama waaye nag yén na indam yén indam laajcut ten da ëddi fa faan ci boor mi xam-xam bi foofu ci boor mi xam-xam bi bëjjën boo xam ne fa dama te bi tabaski ñëwen yén na kooku mën na tabaski laa yi am naa wax waxuma muy naaj tabaski ñëw ba ma bañ bi béjjëm di naan ci waxuma loolu kabe kabay ni mi leen noon bi feebar fu mu feebar ba boo ko yëkkati mu tëdd wa jarabin ak ramoom ba samin ak buy buy daw ba junóoni wala mu xami junne waa salinde wala mu loos yo loof lopp maanaam yo loof lopp buggu mënu tabaski waxarajin wala aji laggi man da dox bu baax waxamadun wala dafa pat benn ba du fa dem wa fayitu jusin wala fara xaaj min xaris xarisin ci lu duu tàpp wala xam na lu faat ci gàtt bi waaye duu tàpp bu di tàpp moom la baas talaban ngertee ngir li kamaale aji maan wa sama ak ji eh, sew ji nopp ji dan lool ak aji xañde ak aji luu ma ak ah, batara aji dagg jigéen wa kama aji lu wa baqara aji xañ yooyu yëpp day mbooguñ ko ci tabaski wa yaabe sadem wala boo xam ne ah, ba taba fa wow maanaam du génne meew aussi ummi wala borom ak day woo seen guddi njaal xaal la nga xam ne ah, njaal la moo tegee ba mi jukki ma tey xar wa mas xoolatu ne wala boo xam ne nopp ba fa وما كسورو سيني ولا وخم نبن فدما تخير أسيان تلدو فوقل سوفي كان فوقه كوكو لاباساني موجه aw kibarin wala mag wala mag moo tax mu bañu fokk wasaay bi sulu si jum bi wala dem ak ñetti xaajab geneen te buñ ko nattee mu ma ñetti xaaj bi yëpp dem na waaye laa us ni na waaye waxuma nopp bi nag kooku moom du tey dana man talaban ngir saaku rek li li ngir aji ko ji wa waxtu waa waxtu mu naa min sabi imaam yi mu ngi tënd di ci rendi imaam de akhir saa sa ba bi sam ñettal ba henda tawi a famti hormi deggi honnudiɓe soppe nan jeeyi ɗum he bo refetta refet o samin agu duufu duufu o sakkurun tamdi gooti bëgganañ ko wa salimi ak aji muccu minan marrati ci feebar aji muccu ci feebar lima tay sam ged ngërëm yàlla subhanahu wa taala wa qaranu jox nañ moomi bëjjin wa abjalun mu weex wa fawlun toppane muri koy in lam yakun nem nekkul nag xasiyu tàppoo gi asman a dëgganu su fekkee tàppam bi moo gën a dóob moom lañ jiital li ngeen nekk na ci mi ne tamaamin ci mag wa daaneel xar jiital nañ ko mu laxan moo jiitu su ma ma suñ topp bay moo ca tegee de waaye koo jëndal bay mu mu ree la foog ne du tabaski bay tabaski la de ka saalika nag nii la ko borom xam-xam yi waxee naka la nii toptale waxtala bu sunu al ay mati xollama alahlaami fii baqari ci nag ba libalin buñ ci jiital nag ak euh, bi ci وتاخير اك يخي رجي يالنا گم لاو يالا سول جلال برو ماك ولكر گام ونو بي سوبي نتر خلق بي واتو وقال مي اك لي مولي ني اي تبيتي حتى سي فوكي فانا تي تبيتي بي تفاخ ني ديبو دا باي ساكوار كي سوي كي تبكي بي ترونا ngene bebe su julbe nga wato wato demu day yati sopane ngital tebal ci hanni sadaqa ci sadaqa bo taxan wala nga di jorel jam wo invaso sopane awoy lamit di war ci ñeal koo xam ne fa sa tabaski fa xew maanaam faatu wa ci fi ay donno soppa nañ doon nañ wëyal tabaski gi bu leen neexee ñu def ko bu leen neexee ñu doon ko wa sa waa ak roxaa gre neem bi yëddi ci loom mu reddi ko ci loom bu fekkum benn am lu ngantan wa jamaa yi mbokk ni boole lekk wa idaa yin ak maye wa sadaqatin ak sadaqa nga def ko ci waaye wa mun naa tere ne mbay aussi in jaay da min haa ci tabaski ma min diddin ci der bi aw suufin wala kataba aw laamin wala yàppam muy taay si dagan na joxe li ci saarati ñeel feeskat bi in kaana nim ne kana di mu karamati ngit wa isa husein ak joxe sayra li ci saarati ñeel aji fees nga di ko fay ci xar mi waaye wa in kaana nim ne kana li mu karamati ngit te daa nga ko fala bal fala la fala ma la xamu ndëgg ruya solo ne han nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man adaa ka tabi na uliyatu ka tabi siima isa saa xaraja nim génne na min xabri ci bàmmeelu وجدنا في الكتاب قائمة رمود أي تقع على رأسي قبل جب بنتو بامين لا فإذا تتسارع كام من خلبان تكين صاب تكين شير ورس وحين أبد من يقول تكين ورس يقول وقرنا جنب من صاب تكين قادس صلوات الصلاة جلالي julli ajima gi jubali gram aji tadi wa salamu abadan sarmadan bila inqida yalbum du harama takawunu bi jahi fa yaqulu man anta su ko defee xar mi dana wax ne yow yaa di kan yow kon eh, yow eh, yow boo ko kooku tëbës goon tëbës mi dana wax ne man yaa di kan man de fama raati gisuma sey an dara ësana la garafe min ko ci yow fa yaqul moo ana naka man qurbaanu ko maay sa jaamu ga la si jaamu nga xam ne xarabta hoo jaamu woon nga ma fii dundaa ci àddina it ka waral ala sëri ci ma فيركب مور مرهان ليجي ويسوم مدن بين السماء عند السماء والله أسو إلا سلي بكر هذا سبحان من يتصفه بمحسد والخير وأن في قلائق من إنس وجن وملك من ربي تفير أنواع أنواع النعمة أنه قال وأنا لفاتمة قومي جغل إلى ألهيتك جمسي سبسني فإن أنك يالتان لا تنسكوينا yar fo dana yëkkati sunu bu ko sa baataat hen awali du fonte fak ñel bee na jañam min dammi haa ci daraji bu damit ni pof sa bàkkat bi yëpp jeex na waxanu jëlee na ay dana xan lii ci moom sa yonente bi asalaam ar moom suufu bi jalaali wal jamaali wal xasamatu wal kibriyaar wal xel mi mu yi wa qudrati taama mu ne dawoo tabaski leen wa tey boo na ngeen teyal bi aaj moom seen boppam li nga jënd ak boppam barkat ki njëg gi na nga ciy teey jox ko rek nga yàlla فإنكم من أقصى جابنا دلهيتو تبسمغا يوم يوم هلا بس بدغني نيكي بسبي وتخبر مدل جول بها تمم قبلة قبلة كان نيكنا قروا بي جنم وفتوى أجزب لبا ودموا أجدرجا وسروا أكوارغا وسوفا أكنتغا وبرها وبرها مدحار دلين تيولو نيكو يوم القيامة كسب بيت قاموا لنا إن دمنا كدرت إذا بقى ننتبه في تراب تسوف fa innoo naka moom yàqu danga tàbbi fii hislaayi ci wattu yàlla an fi xoo dundal leen yasiiran lu tooji doo yoo leen kasiiran bari subhaana si hasiisi wahaab aljawaadil kariim al muhatti an laa yaliqu bi jalaalihi wa uluwwihi kabiiran wa qaala daawudu alayhi salaam si jalaali wal ikraam ilaahi yow suma yow suma borom bi maa saabu man man ana yoroo kan xam ne daa uh, tabaski min ummati muhammadi sallallahu alayhi قال من نصابه أن أجيب مجخدكم كل سهرة ببك برهان جسي جرمب حسر حسر فك فك فك فك فك فك فك لرفل وأمو من فلح نجم حسر ساعة فك يعوتيف وعرفوا من يكت قلوني وحسر دار فك درجة أما علم لما قم جاء داول أن دايا نكتبسي هم متوا مور رواية هل وأن دايا نكتبسي تموت نفر قتايا أو نعتيف والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب السيادة قصة وما تبدي فآخرة أن الله يتي منجيه يما منجيه تندي تبسك مود أجو مسل تنتي دن مسل صاحبا برو من سر الدنيا شهر حي حدنا والآخرة وقال هل يرى الله في قوله يوم نصر متقم إلا رفع ماني وفدا نمكت فيه ba ñoo fa nga way ragal yàlla ñu jëm ci yàlla na nekk na ay lum nu ci nama rukka baana moo di eh, ñu di way war ala na jaay bi seen génn mi bi yam war na jaay im seen génn ya daaya mooy seen tabaski ya daaya hu mooy seen tabaski asala yàlla di sal di jil laaw yàlla naa na xataa yaan sunu may wa xataa yaakum ak seen may wa xafara yàlla baal la naa ñaan ñu xataa yaana sunu ñaawte wa xataa yaakum seen ñaaf wa nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xasimu màggal leen da kum seen tabaski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 بسم الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله قدوس في خيب اللاهوت المتجلي بالأسماء والصفات في علة اللاهوت المبور في عليه ملكوت وجبروت والناسوت جل جلاله وعنس كماله وتقدر أرماله وصفاته وعنس مسونه وتكاثر خيراته وتعادى دمه لعبته وأنت وجوب ست إسكانة لعاصمته وانقاد كل شيء لعظمته وسلم كل شيء لقدرته وقضى لك رقاب وهارت عنه الأباب وأبدل الصلوات وأسكى التسميات وأنما بركات ما تعقل سكرات وحركات ما دام من كل شيء البقاي الممادي بلا انتقال ولا إياد ولا انتهاء إلى يوم تنادي على سيدنا محمد أفضل خلق الله يعلمهم والإله من كل وجه ومن كل تبارك بمرئي تياري الأحيار بلا سقاء سابي مقاي ممون واللواء مقود سيب تتامة ودوة هامة ناسغا لجميع الأبي إنما الغيان وعلى آلي سادات وأصحابه تاهرات وأصحاب أسود هروب والأسات القول والكروب أسأل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأسأل أن محمد عبده ورسوله سعادة من يتقن بمساعدة الوهي ويتجل ويتلد بقاتل برهان أن حق سبحانه وتعالى واحد في ساته والوصف والفعال متسم بأوصاف الجلال والكمال منسون عن الإتعاد والخلول والانتقال والحدوث والجهة والاتصال والانفصال والانفصال اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق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 ويا أيها الإخوان وقنا الله وإياكم من الشيطان yéen mbokk yi yal na yàlla fekkee ñu xayu seytaane yal na yàlla dëppal ñu de ci mba ak ngërëm de xam lool ne yoonu yàlla la ci dugg ñu dëkk donc ko dagal ana sa wa la ko ma an luy mbi te mbi xarsana yoonan la laaw ñàkk ma sara la mu yoonu ala waali umati bila siyadatin dolliwuñ ja wala nuqasim wàcc ñu ja lam wa ñu waraloon ña jëkk ña rek lañ leen waral li lu waxee ngeen ak seen jot bi saadati sang ci sang xeebi fi marat bi ilam ci martabaay ngëm wal islam wa isaan kam am ci zalim amura na taxawaay duñ digle way ci naa bi man hiyaat nga tere tere luñ te luñ tere li ma rek ara li ne ñeel aji moom ji asuuf yi wal samawaati ah samaaw xafa darakati naaraange dan ragal dayli safara wata jaay darajaati jannaan ak yaakaar darajaay xajana waa ximoon nañu taxawal salaata julli واتونا ينجو ساكا تاسكا في قروات شلفين وجلوات أجنبو وهين كه ام بيتيف والنهام أجولك وسمر أمين ولا تواخر ما بلن يخيل حن ما جل وقن قدر دوغن قسمان جمان من سمان جمان واتو جدير جنيكو قف ملك دان غير بود خمن مود فيا كون قال سبحانه وتعالى قد المؤمنون من جلي تخنا الذين جل يا قبل من في صلاتهم في جل صلاتهم هون وين ترون والذين جل جل آه، ان يا قبل من في ان لغو تي فو مريدون ويدل لنجو والذين ان يا قبل من في سكاتهم سين حتى فاهلون ويتخرنجو والذين ان يا قبل من في فوجهم في كرام يا حفظون ويبتل لنجو الى هرا افاجم درسين سونا اما والله قبل ما أيمانكم جنسين في أي جبير فانهم لكم خير ملومين دون يدا wa ñu taxaa ka jàggi sara asaali ka gannaaw loolu fo ulaay ka ñooñ xaaduuna ñoo di way jàgg alla seen ñoo ñaa xam hum ñoom li amaana bi seen kóolëree xabu haadiim ak seen fasante seen kóolëree amaana tamit seen fasante kóolëree wa ko wala si naa ñaan ñaa xam ne hum ñoom an saa tiim ci gis den julli ñoo lee gaa hum ñoom wa aati soona ñoo كبرهمك والإكرام أنه قال ونقل أرسل علينا عشر آيات فكها آية. من أقام تقوى دخل الجنة ثم قرأت قد أفلى المؤمنون حسر آيات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك في دين والدنيا والآخرة الجزء وسوما سور الأمران هورون سور الكور وحجوني حج بيت الله مولد جمان بي تولو حج in wujudan dem xamee na min kaana ak jàppali waru ko na bari tas fi na ngeen bari tas fi dana dana fi fi dana ci jëfi topp wa fi takk mënuma ak bari loo xam ne fañ ko xaraamal wax la sëriñ وثباتي أقلو قمن الفلن تنينك القريب جالبا وتهيرون نغين لابال نجاس قلوب آه، صبيق لي من هقري كمانيال وحسري أخزان وكبي أقري وروج بأكشيم وبخلي أكمانيال خافا لما دقيون غير رقال أجي فادي آه، أجي قمجي كمبوشي تمويال وامتي سلون نغين دلو قولو وام جنالي سرات ونما كتب في دوغو بالليل لخمان قلمي دوغو لين كلمة يعني بنده وقدرة دوغو لي ولا تاسلوا بلين هياني ولا تناجسوا بلين جانت نشد جايت نغنتي ولا تباقروا بلين بنينتي مركن ور بين مرمك ولا تابروا بلين جوانتي ولا بين بوم جاي بوم لنسين على بين بين جاي نيكي جاي صوتي كون دوجت لولو فارام وكونوا نك هبات الله جامي يالي اخوانا دموك وتبيون تين توب سري حرت يون محمد يبي كو يونت يونت بي صلى الله عليه وسلم كتابا جتيري وسنة ak sunna wa imaan ak loo xam ne borom xam yi moo ko boole wa xiyaasaan ak loo xam ne ñoo ko xiyaas jëleen mu daaji feen tablu ko bu ngeen ko defee na jaata da ngeen jot mujj da ngeen jot ne jaata mujj wa riwaan ak gërëm وعليكم نغن تقو يسوبت مقابلين على حق جدك من أولياء عارفين تلولياوي وحرماي أخو حاملين أخر حرماي أقم من جفسين قمقم دور قيهم ودن يوم من مدتي قبل ما يوقع أن حق ولا دق ولا دق boobu tey dina ak ñoo xam ne fa ñoo bi daal lañ topp buñ ko topp rek waqaala wax naa saadiqul masuul saadiqu aji dëggal di masuul xar kuñ dëggal ko muy rasulullahi sa sayiduna wa mawlana muhammadu rasulullahi sallallahu man mooy kaa xam ne yaamuru dana digle bi xadd lii ci maanu wa liisaanu ak mu ne inna ana lillaahi nee na ñeel yàlla malakan amoon ak ala bayti muqaddis mu ngi bayti muqaddis yu naa di dana hooye kullu yawmin ala waye man akala ka lekk na haraman lam yuqbal dañu nangu minhu ci moom sarfun de coobare wala xadun du jokkan farata nasalu dañu laaj laa yàlla salaamatu mucc min ne xirmaani ci xañ wa tuxyaani ak beew xaala sa alayhi salaatu wa salaam man akala riba ka roqon ne lekk nga riba faqad nga minu ci moom si ma tii suma kóllëre jox naa yow amatuma yow benn kóllëre waxaara moo ne dirhamu riba mi ne riba ah sama moo gën a màgg xendalaay fa yàlla min me ati fas ci téeméeri njaaloo benn loo lekk ci riba moo ko gën a bon salaamata wa afiyata yaa siqati wa tawakkalu na ngeen wàkkilu xalaale ci àlla sirran ci la mbóot bu xalaal ni àllu feeñ wax du ko na ngeen bari sulma tooñ wa jannaat ak yàq وعن ابي سيد القبائل رضي الله عنه جل جابي سيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي تان قمنا صلونا كان ربي جبرهم آه، جل حسد وجل أنه قال وأنا يا عبادي إني حرمت حرام الناس المتون حلال نفسي سون بوبو وجاء دمتك بينكم سنديت محرما دوني حراما فلا تسالموا بلين تونيان وتميوا لين ديك قوله صلى الله عليه وتعالى وتجبوا تين تي ماري موجم حرما حرم waajoo te ina saata ba indi kun seen diggante wala taa sama baneen màgg màggulu foog ne da nga dara di tee duura dara yaa ngi bàyyi yéen sama jami kulum yëggin daalun ajiri la ilaa man na te xame xadaytoo jub naa ko jubal naa ko fasta suroo nii na ngeen sàkku ci ñu di ku ma jubal leen yàlla jubal ñu yaa ngi bàyyi yéen sama jaami kulum jëpp jaayoon aji xiif la ilaa man dara kan xam ne arhamtoo leen naa fasta se mooy na ngeen sàkku ci man la a lehen leen yal na yàlla lehel ci loo xam ne duñ ci hisaab yaa ibaadi yéen tam ñu kulum ke bi haarin aji raw la rafle la illaa man dara xam ne kasam toobu hoodonaa ko par tak sooyi na ngeen saa duman jikkoo day ak suumen heed hooddo leen yaa annome ko annukum nako yen tottooni yene nge ma billay di jugude wonna ari ci bëccëg wana naman afru dana ba sunu bakka jami an wala seen fa tafiru men sa ku man ba balu afir ma bal law ya ba yal ñu a baal jégal ñu de ya ba yeso jami nu ko ne mel non to lo jol woni bëgg ma lor man a leen ma lor wala tam lo ko jol lo nafsi nde on ko ƴakki tiñoom wa akhrukum jum wo insukunti en wo jinnakum kanone kan hala kad araje ka gandragal yalla ni ko rasulullahi wahidini kani gene min kumti en ma sara du molko sali ko fi mon ɗi sey an manda ɗo simo wuurki dara gay ba yen sema jamñilaw annalakum annakum ɗo ko yeno akhrukum wo insukum wo jinnukum kano hala abjede kalli men lenni iblis ɗum ni iblis du wañi sumo wuurki dara sali ko fi mutti sumo wuurki yaa bàyyi janna walukum aaxirukum wa insukum wa jinnukum donte ko ni ñi ak jinne sa mooy xamoo taxaw ne fii say dañ ci pàkk waahid ba di benn fas aloo ni ñu laaj na fa ëttibi ma laaj laaj ma daan ko jox te maa naqsar wàññi saaliku loolu mi maa hendi ci lekk bi man illaa kama hen xosu naka la wàññee an ma yutubu sa isaatu xëy na bu nekk tabiree na ku bëra geer bëra dex ndax nga fa pos taba te tax ba la فاهدي يا موتي كل واحد منا مسألته يا واحد يا عبادي إنما هي نكلي فماركم سنجه لكم سيادنا تبقوا لكم يهنا سموه فيكم طب مما تغي يا أمم ومن فيكنا خيره فليمدنا سنت الله يا الله سال جلال والكبر ومعقبل الكرام ومن وجدنا فيكنا خير سالك الجنون فلا يلو من إلى أن سونا ربكم رواه مسلم الإمام وعفونا إن مطلب الحقوق فطلبوه أقدر وأدوني جوكا أمانة دي كلوري وسلو نجي جوكا لا حما رومي بوكي بن مون ريشي ديمال وما ولدي أك صوب وسيلاتي أك ديمالي خاف فلي أك نجي راجل با غاتي يوم يان بو بي بادو جري مالو هلا ولا بنونا بس بان قمنا هلا دو جري نجاكن رومو يسر الله لنا قبل موتي حقوق ألا حقوق ديان يعني

te bu ma ñëwee soxla soo mën a wala moom foofa nga koy tal ba taa yow turaabe ak géwee ko suuf mu ni ñu lay suul wasul ma a wóoree ak lan dama baamal dama ne usuwaalu malaka ni ak ma ah, laaj ak ñaari malaka yi wa dawatu suboor ak foto perte li fas ñeel tiit wax damay jawaabi ak ñàkk tontu au moyen de xasa ak jàkkaarle perte wasi xaabi ak ma wa suuroo na ngeen fàttali yow ma ijtimaa al awwaliin bis ba dana dajee ña jàkk yi wal aaxiriin jinne wa nit ak malaaka yi muqarabin yi ak nabiyiina ak siddiqiina ak suhadaa yi fariqun fi jannati de ñu ngi ca xajana yal nañ ca bokk wa fariqun jannata fii seer ñu ngi safara yal nañ ci yàlla musal min muhakkim hadi hadir wa suluna illa la yaafa wa afiyata fi jamii lumuur sirin wa halaniyatan in la yaamuru bi adli wa itaa wa saqu wa yanaa ni funtaar yàlla mu ngi digle maanute ak rafetal ak joxe ñee borom ak jege ñaale ak tere ci tere ba tey ci ñaawteef ak léegi xam ne fañ ko sib wal bax ya ak beew yéen sugum dana la waareekum laan la kum daga yéen tasakaroon ngeen faatu allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asira إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك والقول كله في يديك اللهم صل على سيدنا مؤمن الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار أسيم صلاة تغفر لنا بها ذنوب قبائرها وسقائرها مع ستر الهيوب ولآبائنا وماتنا ومساقنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا يا رفافين وأمامنا وحماتنا وأهوالنا وقلاتنا وأزواجنا وأثارنا وسريتنا يا أرحم الراحمين وجيراننا وأصدقائنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين اليائمين والأمات يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سنغال نغين أبوني bitim réew na ngeen abonné KBN Sikkal la bone daaru maam Omar da liggéey